dëkkaale jar na faale. lii de jar na faale. dëkkaale jar dëkkaale kenn du ko def non dëkkaale jar na ma lu ma soof ci kër gi. moo ba du la soof ci kër gi. laaj gi. kër gi. dafa réew. ñànku du sang. hey lu ko waral. sa neex mi ci kër gi du wax ak tafa. loolu doy na waa. varié ba sax.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 et du 6 sénégalcom ou bien wwwe du 6 Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. yow looy na ni kii kii ne Cees si jàpp jaan yi. ak Moustapha waaw bàyyi waxi jaan waay yow. garaawul man day baax na. waaw man tamit day day la mel. ah, <laughs> ah xa xamoo ko jox. waaw ah. kii ah, xamoo ka Modou Mbène. xaw ma kooku Modou Mbène da ngeen dool mën a wër. dañuy fen Modou moom moo woo mu ñëw mu ne ma mu ne ma ñaan ko mu ne ko ah mu ne mu ne kaay ma ñëw xaalis Moustapha sama yaram bi mooy daw. billaay wallaay man mi sama yaram day daw moo ñu mel moo moo ñu ko may. moo leen ko may kon tegal fi xaalis alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin ñun ñu na la ko may nag. waaw waaw may na ko ah. ñu na ko may. Ah. comme waaw joxe rek joxe rek sa papa dina ko séddale moom. dina ko séddale ku ne am cala nga ca war a am. waaw ah, kese <laughs> waaw kay <laughs> lii de ëpp na waaye teguma leen ko de ëpp na de wol i xaar yaa ngeen may ko xaalisu kër la wol eh, wol ñàkk rek. ivoirien. wol ñàkk na rafet rek na rafet rek na rafet rek. Côte d'Ivoire na rafet rek. ñoo liggéey <laughs> la la. fii waaw lan la. lan la. waaw lu ana xaas yow kan sëñ bi amul wax xaaral rek bonom bonom bonom ayo bonom papam dafa ndànk rek ma de de de boy boy bonom bonom ana xaas yow xaalis la da nga leen yoon xaalis ana xaas da nga leen yoon xaalis da nga leen yoon xaalis yow lan sa xaalis la xam mu jëpp lan la sa sama day dalay tax day naa de sama day dalay tax kii wérul de kii wérul wérul kii wérul lii lan la yow eh pour boy eh defal naa defal naa eh eh boy eh boy oh oh laa ilaaha illallaah waa fatu naa. doxal naa ñor bul buuse bul buuse. ak kan ak kii nii ak kan. ah kii kii. ak kii sa baaw la xale yi dañuy fen. asma taxawal taxawal lii. lan la taxawal lii jàppas nopp jàppas nopp bi waajal. waajal allahu akbar. bu ngeen bu ngeen yëngu ñu di kër gi. bu ngeen gisatee xaalis si jàmbur di ngeen ko baax. dugal yaay man sama yoon néew. man bu toll nii ah sama yoon néew. taxawal lii ah. yaay oy. waaw man lu mu méttoo ak yéen. sukkal sa loxo kaw. oy ay loxo yi. dugal yow kon benn. toog naa toog naa maa non non wuy wuy wuy wuy saa yow la kii wala kii ah ay yow la ay say nga wér far far say nga wér ngay jàng far far sukkal ab avant waaw nga wér avant mooy na man ab ab eh eh tey mu lekk tey mu lekk ko mo non jéem a jóg mo non jéem a jóg tey mu jóg yaay dugal la ilaha illallah gaawal ay waay wàccal dugal gaawal dugal ay waay wala waay bu ñu te xaar ni ko bàyyi Yalla iya, iya, eh, kan ki ya, mo nangu xaliss mau ki mo ko itu apa? ki ma febar iya. ni asma dama asma ko ni Uya yo ki mom pere eh wari ya wari ak ama na appuyé eh ya wari no ju jugal ak wari mi ngi ni mom tej la tej jugal ah tej tej na bu nak jugal ni bu yo eh ni bu ñu ko seet. dina li yow. kii daa dañ kii de day damm de. gisoo ko yërëm. jugal jugal jugal jugal. loolu mel ni ron fii ron. ron sa tànk mu def ay ron jugal. ah loolu day ron fii gaaw gaawal. gaawal. gaawal. jugal jugal. jugal yow jugal. eh boo bee toj. bu nga dee xaas ma nga bàyyi ah. parce que mbër kenn du ko lekk. dawale wu. woon naa leen xaalis bi doxul quoi. soo waxee taale yow góor ci kaw. naa woon naa leen xaalis bi doxul. ñaaw xaalis bee bëri lii du xaalis manœuvre. ñaaw. ne woon naa leen du xaalis manœuvre. dawale wu dawal. mu wàccee. ajal. ajal.

wàcc ma dama wàcc ma ko. gaawal demal. gaawal demal ak Eval na gaaw aja loolu ngay jàng bandi xool nga xam doo bandi sax doo nga xaaj jàmm doo ko bàyyi gaawal demal abi amal waaye wàccul deret nga amal dama jël yow eh demal am yee ra jëkki jëkki ki tës ra jëkki jëkki ki tës ki tës bugguma baax ki tës ki tës mooy baax nga bëgg ra jëkki jëkki ki tës wala bëgg ki tës ki tës ki tës ki tës tës tës tës am yee day nga dee rek abi avant soxla may baax ra jëkki jëkki ki tës ki tës demal su ma la wooyee di nga soppi xalaat war nga bàyyi di ngay agressé jar na faale jar na faale dëkkaale kenn du ko def non non dëkkaale jar na faale. laaj ma lu ma soof ci kër gi. moo ba la soof ci kër gi. laaj ma lu moo dafa réew ñànku du sangu. lu ko waral. sa neex mi ci kër gi du wax ak tafa. loolu doy na waa ivoirien ba sax daa mujjee ragal. fii ci 5TV fii rek lay xewe abonné leen. dëkkaale jar na faale yi de jar na faale dëkkaale jar na faale yi de kenn